États-Unis. Uh-huh. donc y' a beaucoup d' ambassadeurs qui sont là. Uh-huh. ñoom ñëpp dañuy ñëw ci événement bi. Uh-huh. les amis de Asalfo aussi. Asalfo donc sponsor yi nga xamante ni aussi jàppale nañ ko. ay MTN. ay MTN Union européenne. Union européenne bokk. voilà donc suñu ministre aussi suñu notre ministre tutelle. suñu suñu grand suñu mag suñu xarit monsieur Abdoulaye Diop ministre de la culture et de la communication. na ci déparé ba réaliser ay millions. dëgg la je pense que li am solo rek mooy volonté bi. kon culture facteur de développement la. dëgg culture maanaam communication la boo xamante ni yaa ngi jaay sa réew. sa destination wu dëkk. àdduna bi ñu ngi lay seetaan. parce que les gens viennent de partout. tubaab yi jóge nañ fu nekk. africains yi jóge nañ fu nekk. et que ku ñëw di nga am loo gi jël di nga am loo yóbbu. je pense que ni vraiment chapeau à mon frère. Assalfo vraiment. Mm-hmm. waaw. les autorités. Mm-hmm. les sponsors. Mm-hmm. Euh, les artistes invités. aussi la presse. Euh, ak les représentants des pays. il y a beaucoup de ministres qui sont là. la beaucoup d'ambassadeurs déjà y a le représentant de l'Union européenne qui est là. les ambassadeurs de la France de l'Allemagne. les mais mag ji. yow fu mu nekk nii yaa ngi bàyyi xel ni fu mu nekk nii li fi Assalfor yi def nii chaque année ba treize ans Sénégal est-ce que xam nga ne ñu ngi lay xaar ci loolu parce que ambassadeur nga boo xam ni pap saa yu ma a dugalee man lu tax may fier ci di dugal à part dara mooy nit ñi commentaire yu positif yu ñu may wax ci yow dafa baax dafa yaru dafa bëgg réewam loolu est yaa ngi xaar ni mën nga koo indil Sénégalais yi. waaw mais bien sur parce que. chaîne bi c'est extraordinaire. chaîne bu mel noonu musuma ko gis ci àdduna. ñoom dañu gëm culture. dëgg la dañ ko gëm. tey maanaam culture facteur de développement la ci réew. Uh-huh. da ngay gis ni que tey euh, quartier bi nga xamante ni tey mooy Marcory yi fan la ñuy defee événement bi tey ku jaaykatu caaf bi nga xamante ni chaque jour maanaam dix mille francs la doon def si chiffre d'affaires mën na def chaque jour. peut-être cinquante mille francs. taximan. Oh. Mhm. donc Abidjan c'est pas la première fois ma ñëw fi. am naa fi guddi gu nekk ni ma ko doon defee Bamako defee ko Guinée defee ko Gabon defee ko Gambie donc noonu laa ko yàgg defee Abidjan ñu yàgg ñëw fi bégal leen franchement. Mhm. donc stade bi ñuy joué suba. Mhm. muy UNGS. Euh, UNGS waaw. joué naa fa yàgg na ndeysaan. moo tax bi ma ko gisee mais foofu dafa rëy Pape. sama yaram dafa ndaw mais c'est vrai. mais foofu ngand na ba pare chaîne. et loolu lu am importance la. Hmm. donc ñun aussi suñu mission mooy euh, ñëw pour représenter suñu dëkk. Hmm. Sénégal. dëgg la Sénégal lañu am. Hmm. lépp lu ñu am Sénégal moo ñu ko jox. loolu la ñu gën te loolu la ñuy dund artistiquement donc te fii ñu egsi tey c'est le peuple sénégalais ñoom ñoo ñu soutenir. Oh. jàppale ñu. donc hmm. Abidjan fii c'est pas la première fois mu ñëw fii. la am naa fi guddi gu nekk. dëgg wax dëgg yàlla. dëgg la depuis deux mille. le ministre de la culture et de et de la communication monsieur Abdoulaye Diop euh, la directrice des arts moom tamit ñëw na xam nga donc euh, ministère de la culture euh, ambassade bu Sénégal tu vois donc kilifa yi nekk fa si Abidjan. Hmm. ñi nekk France am na ñu jóge ba États-Unis la. rencontre la euh, relation la. Mhm. contacts la. Mhm. jaaykatu banaana bi. Mhm. yaa ngi dégg jaaykatu yére bi jaaykatu dàll bi jaaykatu ndox bi donc da ngay gis ni que ki nga xamante ni sax man maanaam chaque jour euh, daana def cinq mille francs wala dix mille francs mën na def cinquante mille francs par jour te que loolu durant une semaine ci festival bi. bu ko dajalee su ma benn deux cent mille francs wala benn deux cent cinquante mille francs am na départ. deux cent mille francs nit mën na. parce réew moom euh, benn nit rek mënu ko doxal. ñaari nit mënu ko doxal. réew mbooloo moo koy doxal. ku nekk fi nga mënee mu leer na fi maitriser nga ko. nga jàpp foofu ñeneen ah, ñeneen ñi jàpp ci feneen mu avancé. Mm-hmm. donc asal fu li mu def lu am solo la waaye nag. dañ ko jàppale ci mhm, ko jàppale donc ñun aussi euh, bu ñu autorités yi jàppale rek am nañu xam-xam bi bëgg am nañu xalaat bi am nañu idée yi bëgg nañ ko te bëgg nañ ko réaliser donc je pense que ni euh, comme ni ma ko waxee rek li tax tukki am solo mooy da gis da ngay observer da boo demee nag après nag nga def synthèse. Mhm. donc euh, tey ça se voit que ni euh, la nouvelle génération en Afrique euh, am nañu yeneen idée. monsieur le maire dafa mel ni mooy fëgg de. Badara waaw. moom monsieur le maire. non ñu ngi ci suite bi monsieur le maire Badara Gadiaga le grand communicateur communicateur. mais Badou. non Badou ah, mais Badou Badou sa waay daal Badou sa waay daal tey marron noir la fël. mais lii dafa garaaw maroon la sëmmal wala. non lii dafa garaaw xam nga man yéen laa fam. non lii dafa rafet. macha allah mais Badou. ayca non l'artiste est prêt. barke Sëriñ Bamba Mbàkke noir eh. noo tey pap xam naa badus si xam nga ni saal baa ngi fees del del del del del barke Sëriñ Bamba boole koog sunu bi nooy nepp ba pare sa mag ji dafa nam ay waay nee ma këcc ma ne ko naam mu ne ma tey dinaa ko rey de ah, <laughs> barke Sëriñ nee ma Badara dinaa ko rey ci Côte d'Ivoire tey Sëriñ Bamba loolu maa ngi nii doon reer nii léegi. ak Serigne Mbamba xaama reer ñu wàcc. xewlul parce que léegi sëñ bi. ah dama yéene. ak waa bii mooy yow yaa ngi fi daj. léegi maa ngi soog a yéen si. yaa ngi soog a yéen waaw. mais maa ngi jéem. maa ngi koy ji. non la xaar. jéem mooy ñëw. mais grand. macha allah. on prend quoi. ah. Massa ngi nii. ah Mesdames, Messieurs les élus. chers invités, ngi nii. Assane Faye ngi nale. Ah. yaa ngi am la grand le grand maestro fii Papis Konaté. Ah. am fii Mass le grand guitariste. ah am fii Jules Diop le grand baptiste. Ah. ah am fii le grand. Euh, am fii sama doom ndey. Pape Diouf a ngi na la taxaw di xaar.